tey nag dama gaañu ci xol déglooti leen ma Sénégal góor jigéen na ngeen ma baal gëjoon na ma waxe ci xaal tey nag dama gaañu ci xol déglooti leen ma Sénégal góor jigéen na ngeen ma baal ma waxee ci xaal xëy nag dama gaañu ci xol inna lillahi jim na tey coroon garab ga tudd xay ba koo dajeel mu naa la tey musiba am na santu xel ngir ñàkk nar ko du la ma taxoon ba réew mi naan wali yomb xel yi dal ngir moo raxas ay di xol jàppal ndam xëy na mooy bu la tees loolu si noonu si noonu moom ànd naa mbooloo mépp ak soxna Fatou Sy ñu togg xewal yi andi ko Xelkom jaar na daaru ku des ay daara ci alxuraan mu lay sukkal gaaw siraatal mustaqim di jaamu yàlla karim boo yendu yónni say waay barke alxuraan sama xol sedd na kontaan naa bég naa sant bi sori na te seen jëf ji àdduna bépp gis nañ ku leen neexoon ngeen romb ñëpp laa mën a yëngu li nga sëñ Saal yow la ñu waxal de sëñ Saal da ngaa am ab cër ci xel koom bu xel koom ñëwee xel yëpp dem ci xel koom waaye xel yëpp dem ci Saal Ndiaye wàññi ko bi Saal Ndiaye yaa toll noonu nag tey nag ndawi Touba yëpp maabul ak yaas ñëw nañ ci njiital Seigneur Lo waaye ak soxna Fatou Sidi soxna Fatou mii këram lañ defee lépp hélas da ñëw na ne bu ma rayee ay nag ne vidéo laa ko def de te lii may def kenn njëkkuma koo def ne waa daayira Mouwahibou Al Qiyaas boo tudd woon soxna Faati boo tudd sëñ Abdou Samad moom sëñ Sidi Maxtaar kon duma ko wax gileem yi ñëpp di yem. ndeysaan. xel kom rek. waaw. Saal. waaw moo tax Saal ñëpp ñëw nañu. Saal Ndiaye. soxna Fatima moom sëñ Sidi. yaag sëñ Samat. te bokkuma ci daayira lépp mën na ci 3000 laa ko tàmbali woon. ñu àgg soog ngir jëmbi sëñ Touba déglu wax ci. yaa ngi may dégg. waaw. Seigneur Lo mënuma koo fay. nee Seigneur Lo mënuma koo fay. nee Seigneur yëfam barkeel na. ak mboolem ku mu mu waay mu la kiyaas. ndax ba koy def ak léegi fukki man mii la fekk sama dal. nee toogu ñeenti mbanaam. nee man bëgg na at mu jot te booba ba mu koy indi kat Thierno Diop la doon seet ak daaray sëñ bi mu dem daaray sëñ Cheikh siñoor bëgg faa wàcc ay mbana laaj ñu ni boole daa manqué loolu yàgg na sa daaray maam siñoor jooy tàmbali maam bi laa wax ne ànd ko gor ba mu jeex ne ànd ko gor ba mu jeex ne téeméeri mbal yu manqué benn ni ma bu déwénatee siñoor ni ma bu déwénatee mu ànd kook ay nit rek def seen alali bopp ne man mënu ma leen a fay ne boo waxul woon dara du ma tudd ñii waaye li ma wax Cheikh Abdou Samad wax ko soxna Faati ne moom laa wax sañ sunu baay bi yaa ma booleeg moom barki démb ne ma jox ci xel koom bi yow yaa ko moom jërëjëf hélas ja hélas ñëw na mi ngi ne soxna si waaw. waaw. soxna Ami Galas loo ñëw na. yàlla dimbali ma nag. yaa ngi may dégg. waaw. soxna Fatim sëñ Sidim Cheikh Abdoulaye mii. nee soxna Fatim sëñ Sidim sëñ Abdoulaye. nee guddi gi ma njëkk a fanaan xel koom. nee na yàlla di dimbali ci laa bokk. maag maamam yaay joor Diop. nee booba sëñ Saliou tudd Umul Xara. tudd Daaru Salaam. turu Touba xel koom mais booba diis la daal di janatul mahwa daar daartul sin trois Touba belal quatre daar usulmaar bi la yaa xam xel koom maan maamam rek di jur yaayam fi dëkk kon lii miin siñoor saa ngay sant rek ñu dem wàcc na saa buñ guddal siñoor wàcc na yeneen daara soxna Fatou kontaan na xool yëpp ma jiite zonta ki jële zonta teeku di baabu di takk noo xamal yéenoo fon mu dalal noo yëpp zaalu xamal yàlla xamal yàlla ne jàmm yàlla fonk nun baay yaa gën ci nun yaa dégg xam ne lu yàgg la lu yàgg la nekkul tey saal moom dañoo yàgg déggoo man la saal ba may xamante ak moom boobu du jamono ji yëpp kon loolu du tey moo tax fu ma fa demee war naa fu mën a dem pare góode yaakaar naa ni déet pare guñu ba tey dañuy continuer ñu continuer rek topp dali ya topp lañu ba ci kanam kon ay ca mi ngi noonu ci nun yaay tegan ci nun waay te nem ko saaliw ñun wuti nan la te jàpp nan la